encore gars de la confiance renouvelée merci de des likes merci de des abonnés merci également gars di bàyyi seen commentaires un plaisir renouvelé à hein. chaque fois de partager ngeen information yi mbokk Sénégal yi fépp foo leen 14 régions du Sénégal hein diaspora bi ruq-ruqaat ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk ci daal hôpital yi également feebar ak ci kër yàlla suñu borom fëgg seen bopp ñu wér ak jàmm ñu nekk ci kaso yi suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen njaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xara leen fi daw gars yi te nous ñu on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité en continu mais gars vous bu leen fàtte bës leen ci cloche de notification bi bës leen abonné en masse di jot information en exclusivité mais également bokk ci jeu concours yi actualité bi nag tey ki nga xam donc Boulaye Boulaye Dia convoité par le Milan AC ak également yi nga xam le Napoli De leen ci wax lépp luy détail ak aussi agent bi nga xam ne moom lii ni mel loolu ñu dañ leen koy fas yéene wasaare mais laata boobu nag waa Dakar Sacré-Cœur ah ñoom gaz bu ndaw et tout seen euh, quatre joueurs ñi ngi def test fa nga xam ne donc foofu noonu ci Olympique Lyonnais ki nga xam ne nag mooy na faa dugal à ah, penalty ah ak aussi def benn passe décisive donc ñoom ñu leen di souhaiter bonne chance si seen stage bi ñuy def foofu noonu mais gars yi kenn du Sergio Ramos Sergio Ramos gars yi dañu ko waxu Al Al Nassr quoi pour mu dem fa mu leen saa wuy leen ma man bu leen ma bu yàpp ma weesul nga may wax ay club Al Nassr quoi mu ne <laughs> le Sergio Ramos daal di wax ki nga xam ne également mooy donc Gianni Infantino moom nag fi mu ne ni nee na gars yi. coupe du monde bi nga xam mooy coupe du monde féminine bi eh, télé yu bari ak ñu bëri ah, li ñu proposer pour dal di diffuser match yi eh, jaru ko baaxul motax dal mom même bu fekké ne duñu diffuser coupe du monde bi sax neen jaral na ko waaye am nañu njëg yoo xam ne ko nangu pour nangu ne da ngay diffuser wala direct, direct match équipe coupe du monde bu jigen ñi ki nga xam né nag mooy également ki ngeen gis ni ah doot ñu ko présenter Juan Laporta Laporta dal mom fi ni gaay né nañ ah, notamment yenn médias espagnols yi du moment que ñom ñi ngi préparer peut être UEFA sanctionné na leen nee bu leen UEFA sanctionné ñom dal dañuy dem jouer ci benen championnat <laughs> ah, pour mën euh, compétir loolu dal la gars wax mais aussi ki xam mooy José Mendes ngeen gis ko ki moy agent wu Lamine Yamal moy agent également kii di Ansu euh, Fati entre autres moom dafa war a daje ki nga xam donc euh, Juan Laporta pour waxtaan ci waxu joueur yu ni mel kii nag di Franck euh, huit dix derniers matchs yi nga xam donc yu Barcelone joué huit yëpp ci banc la ko toog moo tax fi ne Inter de Milan daal ñoom pare nañ pour daal di koy récupérer indiwaat ko ci Italie ba nga fa la ak Milan AC kii di Franck ki nga également nag l'ami de El Hadj Ousseynou Diouf Sam Allardyce Sam Allardyce gars mom moom daal moo nekk entraîneur bu Leeds United ba fin de saison ndax ki xam moo actuellement yàggu fa yàqu fa ni gars yi waxee ya mais ki yàgg yàggu fa waaye yàq na fa moo tax daal fi mu ne nii Leeds ñoom bokk nekk premier non relégable dañoo bëgg a génn situation boobu cinq matchs cinq défaites benn entraîneur la boo xam ne moom intérimaire la kii gis ko Frank Lampard moom it ah <laughs> am na problème ñoom ñi nga xam nag Arsenal lañu war a loolu nag match bu euh, graaw la kii nag di Jürgen Klopp moom Jürgen Klopp dafa am problème parce que euh, démb sax seen match bi mujj contre Tottenham ba ñu dugalee dernier minute dafa dem song arbitre assistant bi di ko yóoxu xam la wax après mu ne nag arbitre assistant bi arbitre central bi dafa am lu mu ko wax gars nag génn nañ preuve ne waxu ko dara ñu jàpp ne moom boo moytu ñu ko daal di ko waa Manchester City gis nga li def foofu noonu photo bi ci kaw lu ñu bind aw goal notre objectif seen objectif mooy lan mooy Ligue des champions loolu daal lañ jël photo affiché ko foofu pour ne gars yi Manchester pare nañ City pare nañ de gars yi waa Real player of the month meilleur joueur du mois du côté donc de Manchester City John Stones John Stones le défenseur donc anglais qui nga un John Stones donc meilleur défenseur donc du mois du côté de Manchester City Guy Naka ah, golden Kimi ah, golden boot soulier d'or meilleur buteur commencé kan ngeen gis ne mu terminé ko Haaland ah wala Kane wala kan ngeen gis daal mu terminé li nga xam ne daal mooy meilleur euh, buteur ah donc ci li nga xam mooy donc soulier d'or bi kii nag ñi ngeen di gis ni gars yi ñii ñooy meilleur passeur différents championnats yi cinq grands championnats yi ñii ñooy passeur Lionel Messi De Bruyne ak Vara ah, kii Guerrero ak aussi ki nga xam ne mooy donc. qui dit euh, Antoine Griezmann. Pendant ce temps, Karim Benzegol, Benzema, mois d'avril, Bigay, hein, ah, trois matchs, ngeen quoi match yi yëpp dafa triplé contre Valladolid contre Barcelone contre Almeria kii bokk ci kii bokk ci trois match yi nii dafa triplé donc avril bi daal ah, mois d'avril bu Benzema mais aussi ki nga xam ne mooy Griezmann moom lañ tambaat mu meilleur euh, joueur du mois du côté donc de la de la Liga mu ñëw égalé égaler record Lionel Messi parce que moom it nekk na ko à huit reprises comme Lionel Messi ni mu ko nekkee à huit reprises meilleur joueur du mois de la Liga ki nga xam ne nag mooy Upamecano Upamecano fi mu ne gis ngeen ko reprendre na moom entraînement yi entraînement individuel la nekkoon tey ah gis ngeen ko Upamecano Mécano bi nga xam ne joué woon dafa amoon benn jeune donc gars yi di espérer il sera bientôt de retour Boulay, Boulé ja. Boulaye Boulaye Dia actuellement il est en forme machallah allah laf cat laf cat yàlla na gëna a en forme sax Boulaye Boulaye Dia actuellement ñi ngi koy tudd fep ñi ngi koy tudd du côté de l'Angleterre ñi ngi koy tudd du côté de l'Espagne parce que ñi di wa Villarreal ñom ñoko mom bu len faté lolu Villarreal mom mom mom ba léegi Boulaye Boulaye Dia ñoom ñoo ko àll ñi salaire xam mooy et Boulaye Dia pour moi il a fait le bon choix d'aller là-bas ki nga xam ne mo ngeen gis mu yor sac bi ki moy donc euh, Frédéric Guerra mom moy agent wam Frédéric Guerra nak nek ah, nekk agent bu réputé mom néna effectivement wa Napoli dañoo contacté dañoo intéressé au ci ki nga Boulaye parce que aujourd'hui Napoli dañuy préparer départu Victor Osimhen donc Boulaye Dia l'un lañ def pour dire que recruter éventuellement mu ñëw numéro 9 du côté de Napoli et Oliero De Laurenti serait séduit par Boulaye mais il n'est pas le seul parce que Boulaye actuellement gars saison bi c'est 12 buts 4 passes décisives mais il y a aussi une équipe qui est très moom Il y a le grand Milan AC de Stefano Pioli Nous sommes dañoo soxla ben numéro 9 parce que C'est un un attaquant yi Zlatan prolongé à ce qu'il paraît à 90% qui aussi ah. il y a également. Eh, ñoom ñoo fa nekkoon ay attaquant donc ki nga xam ne donc tamit Origi prouvé wul ñoom daal eh, Boulaye Dia aussi bokk na seen i plan gars yi c'était les informations que moom chaque jour dinaa fa dugal deux vidéos wax technique analyse football dinañ ko fa waxee gars dem leen abonné aussi jaa ngeen jëf